libanais yi ay levantin lañ leen daan wax levantin ñu des pays du Levant ñu doxaat ay ay libano syriens Nous ay at doo libanais Quand nous avons l'indépendance, indépendance ñu bari ci duñu nationalité libanaise Nous sommes ay sénégalais Nous avons dañ di des sénégalais d'origine libanaise kon ñaar moo fi daje jaala ñu nekk dëkk ba jaala ñu toog fi tam ci ay mbokk kon su fekkee ni ñu ko Pierre Goudiaby bi wax président la république ànd na ci ñun ñi nga xam ne dañu jaxasoog communauté libanaise dëgg nag léegi sax ni ñu dëkk bi jaxas eh, demee moo tax jaxasoo bi wàññeeku mais ñun ñu ñu maaseel ñoo daan mbokk jàng ndax yooyu jamono école privée amul woon ñu ñu maaseel ñëpp ci école yi ñu daan nekk ci lycée yi comme ni ko Pierre Goudiaby bi ba ñu jaxasoog ñoom ci wàllu liggéey yi tamit ñoom bari nañ loo xam ne liggéey nañ ko trait bi moo tax boo demee Kaolack boo demee Diourbel boo demee Gossas daan fa fekk libanais yi kon loolu su amee lu mel ni su amee dafay baax lu mu xat-xat rek ñu ñëw massuwu leen wax leen ne ñu ngi jàpp ne Sénégal yëpp ñu ngi bokk di leen massuwu Sénégal yi ngi jàpp di leen euh, xamal ne ni ko Pierre Goudiaby wax du ñàkkul ñoo xam ne dañ ko def ak lu mënti toll rek dimbale ko ñi fa nekk.